bay wejji ñëw na borom vélo bi ñëw na ndene ndene ñëw na ndene doomi giw la bay wejji sa kër gi neex na lool waaye xoolal ndeene moom géwél moom moo ko yëngal bay wejji ñëw na borom vélo bi ñëw na ndene ndene ñëw na ndene doomi giw la seetaan kër wejji dem fa seetaan ko jar na lu ne ku fa dem di nga seetaan xoolal ñu seetaan te déglu lu leen ba waaw tey ma way bay wejjeey waaw waaw bay wejji nee na vélo bi rek ko ñor waaye ndeene doomi géwal la deretu géwal moo ko yëngal yow wax ma lii la yëngal ndeene moo ko yëngal kër wejji ku fa dem di ree ba fange per wejji yaa bari feeling yaay sama wér bi ramassage ci ñoom bi jël sa àdduna ak sa àllaaxira yëpp yor ko ci vélo yow damaa waxut ak yow dangaa ñàkk fayda yow nit ñi jéem a avancé nga nekk sa vélo boobu rek da ngay bàyyi ba am ko man de reefe naa leneen lu dul vélo kat kat laa ñaane moo ko ki ñaane rek ki ñaane ci vélo boobu yow daal ñàkk fayda doo mën a war waaw da ngay ba am ko pare doo ko waaw nekkal foofu li benn benn rek wax ci laa wax trop wax ci laa wax trop loo nekk ci keppaat di mbaj mbaj mbaj rek bàyyi ma sama liggéey rek waaw baax na baax na jërëjëf. nekkal foofu di wax rek yow. kuy laal ma demba sabar dëgg ndaayaan kuy laal ndax saay kuy laal sama doom jee. rek ma ayoo beeyoo. soxna Gassane. waaw kaay kaay kaay kaay kaay. ah yaa ngi may yàqal sama fóot bi. rek kaay rek. da mbaara ko mbëfa rek a njool li dafa garaw. Ah. waaw waxal waay. dama ne. dama wax fee ma ko. eh nee na nag bàyyi rek ma def ci sama fóot mi nag damaa yàkkamti. maa la ko ñaan mayaat ma ko rek. ah. Mhm. kuy laal maa demba. Mm. sabar gàcce ndaayaan kuy laal ndax saay. Mm. kuy laal sama doom jee ayoo beeyoo. sama doom sama sama soppe na bu yeggee yeggee sa baay daanu ah. <laughs> xam nga ne eh, fi lay daw. xalwaay. nga na. Mm. ñoom ki ne laa mënul ñu man rek man ma judd ci ngéwal yaru ci ngéwal màgg ci ngéwal di doomu géwal man rek ci xale te li ngay woyee garaaw ndax yow da ngay mbaar de mbëkk di bëfër di njool eh, man dama koo jàng sama yaay ba ma nekkee xale bu ndaw jàngaloolu ma dara lu dul waaye feeñ rek kese laa ma noonu doomu géwal day xam ne doomu géwal waaw waaw lii war a gën a xam gis nga yow hmm. sama soxna nga waroon doon waxal waay man daal gis naa loolu daal hmm. eh, eh. yow yow yow yow yow yow yow yaay caga dëgg dëgg dëgg yaay caga hmm. doomu raam nga yow ndekete li ñu nekk ci kër gi yaa ngi xool sama soxna ji bu nu ma weddi dara caga nga hmm. caga nga caga moo tax ngay xool sama soxna te nga xool li ngay wax eh, wanu ginnaaw yi aja ngay batar batar nii rek ñàkk nga fay la trop yow leer na ma ne ay bu ma génne yaa ngi sama soxna si xoolal li wax si taatal li ngay wax seetuma dara yàgg nanu de seetuma dara sama jabar ji na xool ma ci yàgg ma ne waaw wuyu ma déglu ma la déglu ma rek dama ne waaw bu waaw suñu bu baax la suñu géer bu baax suñ Fallou suñ Fallou man borom Gabon loo ci wax tey la nu waxoon di ci lan ah ci lan billaay was bi dara da cee nekkul rek waaye kon du ma dem de ma ne ñàkk yor dara nag moo ñu dem rek ànd ak yow dama see sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk waaye bala xoj baaxoo baax teexam ànd ak dama dama doyal boo bàyyi wax kenn yow moom maa ngi dem maa ngi ñëw nga ne di sax paanu mbali du ma ñëw li jël sëñ bi. kon daal sama ñaar moom la taxataan rek suñu problème bay ma ne ñëw dafa na borom vélo bi ñëw na ndene ndene ñëw na ndene doomi giw la bay wejji sa kër gi neex na lool waaye xoolal ndeene moom géwél moom moo ko yëngal bay wejji ñëw na borom vélo bi ñëw na ndeene ndeene ñëw na ndeene doomi géwél la manaan kër wejji dem fa seetaan ko jar lu ne ku fa dem di seetaan xoolal ñu seetaan te déglu tey ma way bay wejjeey waawaaw bay wejji nee na vélo bi rek a waaye ndeene doomi géwal la deretu géwal moo ko yëngal yow wax ma lii la yëngal ndeene géwal moo ko yëngal kër wejji ku fa dem di ree ba fange peer wejji yaa bëri feeling